munul leen ma noppiloo da ngeen di dem ñu defal leen man damay toog def bés bu rafet laa doon xaar pour tontu bés bu rafet laa doon xaar pour wax mais du yéen ñi ne ma mën a noppiloo te dinaa leen adressé parole directement yéen mbokki moomoo yi adressé moomoo parole directement ak waa Tëngéej wax li may wax tëj ko du ma teg ojo duma teg video du ma teg dara ndax mën naa wax te xam naa li ma war a wax. bis bu nekk li may wax duma ca delluwaat ndax loo xamul kañ lay jeex boo ca nekkee nay neex mais li ma leen di wax àdduna dineen ko dégg yéen di ngeen ko dégg dafa am benn jigéen bu tudd Ndeye Penda Ndiaye Ndeye Penda Ndiaye numéro am plus 39 la 338 123 91 mu des ñaari chiffre moom xam na ko ñi xam numéro bi xam neen ko daf ma fi woowoon bés message ma TikTok dama am lu ma bëgg wax nangam nangam ma foog ne ci jigéen ñi may sàkku ndimbal la déglu leen bu baax li may wax su ngeen su leen lii rëccee du ngeen xam lan laa bëgg a wax ma ne ko lan la mu ne ma benn artiste moo Dieng day toroxal jabaram wax ma yëpp ma ne ko Momo Dieng Diouf ñoo ma daan invité ci moom ma ne leen dinaa ñëw dinaa ko may doole ma woo Bachir ba sonn jotuma ko mu am benn xaritu bébé li boo xam ne man dama koy doxaan bi ma nekkee woon Dakar mu expliqué ma ne su bébé li nekkee ak Momo jabar ji su koy woo da koy tuuti ma ne ah ñaari xibaar yu uti ci place yu uti lii neex naa gëm may laaj koo ko muy laaj bébé li moomoo wax naa ko sa jabar am na benn bis sa jabar mu ngi la woo bébé ngi sëgg di màcc sa kooyu ndaw yi xaw ma ko fekkewu ma ko nii leen ko wax yow moomoo nga ne sa ngay soofantal sa jabar ba mu la ndax dangay nelaw nga ne ko waa mu ne la nga bàyyi ko loolu fekkewu ma ko te yow xam nga ne dëgg la bébé moo ko wax xaritam mu wax ma ko xarit boobu nag dafa bañ a feeñ ba ci bracelet bu la sa jabar indi loon Amérique jox la ko kado bébé li takk na ko ba def ko snap caatam man nii laa xamee kaawu jabaru moomu ci ndey Penda Njaay boobu nga xam ne mooy jabaru Mangoone moom mooy nekk ci ginnaaw Adamo te dina leen wax lu tax te Adamo dina wax ngeen dégg wujj peccor ko boobule moo bañ Momo Dieng bëggut ko te wa yéen famille Momo xam ngeen li may wax bu baax ne dëgg la ndax sosuma fenu ma yéen famille Momo xam ngeen bu baax ne Ndeye Penda bëgg Momo lan la jotee ak ba bañ ko Mangone mii la jeunesse liy dal jeunesse day dal ñëpp fii su doon ko laal biiral man am naa mille doomi biiral loolu du gàcc du problème bugguma offensé ñim daal mais moom la yàlla nattu mu biiral benn jigéen balaa jigéen ji di am doom mu takk Ndey Penda fan la xamee Ndey Penda Italie jëkkëru Ndey Penda moo ko boole woon ak Mangoone ak présente leen ci biir sëyam bi la doxaananteeg Mangoone ba tas sëyam ba Italie takk Mangoone parce que Mangoone takk ko moom moo takk Mangoone foog ngeen déglu li may wax ngir fa may mujjee léegi nag Momo Dieng ci mbaaxam moom dafa contribuer lu bari ci ma ngoneen reconnaître biir bi ndax Momo Dieng xam na ci lu bari ma ngoneen nangu Momo di jàppale xale bu jigéen bi mu am doom ju ñu tuddee ko Momo Dieng Mouhamed Dieng bu ndaw ma ngone moo ko jur takkut ndeyam Momo Dieng di estati xale bi bëgg ko ci biir xolam mbokki moom mooy yéen a ngi déglu su fekkee damay fen nag génn leen li mu wax du dëgg lii naqari ndey penn ndax moom femme alpha la day bëgg di dicté di def lu ko saf mu noonoo Momo Dieng noonoo boobu mu noonoo ko moomu am jabar Dieyna mi nekk Amérique di ko dimbalee ko taxawu ba moom mu bëggoon ci ndimbal li ndax ba muy waaj a am doom pour dem Italie Dieyna la doon laaj ticket jeenaane moom moo waxal kii na ko awma moom na ko waxal ko sa bopp joxut ko mu gedd ba bi ma ngoonee feebaree àndoon ak ñoom ah, ah, demoon voyage toog itali di faju ndaw si dafa woo moom dafa wax ak moomoo moomoo na ko li nga war a yónnee weer bu dee yónnee ko ma ngoone mu faju mu woo ma ngoone jotu ko mu woo ndey penda ci boppam ndey penda ne ko soxlawuñ sa xaalis ñun ñu ngi sant yàlla ndaw si am gàcce gu rëy bi mu woowaatee moomu moomoo daf ko ne waxuma la nga woon Ndeye Penda woowal suma frère nga jox ko xaalis moomu faju munu koo jox parce que moom ngoone Ndeye Penda ko jiital nooneel gii Ndeye Penda bañ moomoo parce que doomi biiral boobu la ñu tuddee moomoo moomoo di ci def devoir parce que deretam la nit du sànni deretam mu def faa ngeen déglu fu may waxee dama ne tër nit ñi naan noonu day yàq carrière Momo day nangam man ak Momo Dieng du ko parce que bokkuñ gis-gis li ma naqari dinaa ko wax te di ngeen xam ne lii dëgg la mu ñëw woo ma man wax ma ko xariti ami Diop xariti bébé lii expliqué loolu ma xam ne lii dëgg la ma junj ko ci mbës ma ne Momo Dieng non dama dama ñëw ma ne borom wéy wi nangam nangam alalu ko sàggan junj. pour que rek mu xam ne suturaam mu ngi xawee ko na defar sëyam bi ma jungee moomoo ci boppam mu ne soo biis la waa Sidi Diop bi ñoo nekk ci ginnaaw li gaañ bi gaañ ni Sidi Diop la moo tax bersi Sidi Diop mosu leen a gis ma publicité ko ndax maa ngi daw sax xel gën a ñaaw waa moom moo ne Sidi Diop ma wax ak beneen xaritu Dieyna bu nekk Amérique fii mu wax ma même chose man bugguma ko toroxal jigéen daf may naqari su nekkee ci dëgg waaye su nekkul ci dëgg nag xooluma góor nii ma toogaat ci mbës junjaan moomoo tuumaal Dieyna ne Dieyna moo nekk suma ginnaaw kooku waat ci yàlla ne xamuma xaw ma ko mu tongoo ko fekk ndaw si yàgg naa sonn ci am doom ak moom di faju di wut doktoor daf daan ñëw ba Sénégal moomoo su ko tëddee benn yoon na ko damay laal garab di dem ci ay jigéen bàyyi ko ci kër gi ba yàlla dimbale ko mu jël ëmb bu ndaw moomoo xam na li may wax mu stressé ndaw si un mois kooku di ko xalaat ba am dépression fii ci Amérique ndeysaan ëmb bi yàqu mu yëkkati téléphone di woo moomoo jëlu ko papi ndaw si moo woo moomoo na ko sa jabar dafa feebar mu ngi hôpital waxtaan wax dëgg ca la bi mu xamee ne ndaw si sonn na moo ko doon wéttali ci téléphone bi vingt quatre heures sur vingt quatre médecin après la mort fi ndaw si ñàkkee biir bi ni biir météo hormone si yëkkate ko fa la ko moomoo fase te li njëkk a yëkkati coow bi mooy yéen a ngi fàttale ko awa ama bi mu joteeg Sidi Diop na ko Momo Dieng sa jabar sa gel bi mu nangu moo la métti te ndaw si doon dégg rumeur bi loolu trigger stress ci moom parce que doomu koo xamul histoire mënoo ko juger ndaw si dafa am ndaw bu métti am fu mu jaar fu métti fu metti foo xam ne noonam sax du ko xam yàlla di ko nattu ci sëy mu dajeeg moomoo am yaakaar ci moom ngir noppi gi mu yaakaar lu ne ci moom jox ko léppam jàpp ko papa jàpp ko jëkkër jàpp ko xarit lu am teral ko Laloucha gis naa la ngay partage sa live lu am teral ko joxe boppam lépp amul beneen mbokk amul xarit ku dul Momo ngir fi mu jaar yaakaaroon na ne Momo mooy doon médecin ndeke Momo mooy paaka bi gën a métti bu koy rey te ginnaaw la koy rendi bi mu ko utiliser ba pare ci la ko ne yow yaa nekk ci ginnaaw Cheikh Ahmed yaa koy fay ndaw si toog méttit boobu mu ñaan ko baat Momo na ko moo gën ba pare nag ne ko toogal fii bul wax kenn tas ne pour ñaari mbir su ko bëggee katt-kattu bu soxlaa xaalis laaj ko ko waaye dama leen di laaj ndax jëkkër ak jabar bu fa sincérité nekkee ak yi ndax kenn nit dina wax ci internet woon nga fase sa jabar daf fekkoon nga bëgg koo fase wala naroo yi ci fase bu ñàkk yar bu ñàkk respe bu ñàkk considération keroog bi may wax ak ndaw si ñaari jigéen ñoo nekkoon ci téléphone bi ak man dafa bañoon a wax ak man bi may laaj laa xam ne moom may enregistré parce que moom xam na ne musuma wax ak moom man xam naa bu may laaj pour ma wax ça veut dire que preuve la bëgg ma may ko li mu bëgg moom jay naa xam naa ne mu ngi may enregistré ma may ko ko mu ne ma dama la mës a xam ma ne ko déedéet den ma sa wax ma ne ko déedéet may ko loolu waat na ci doomam yi teg na kaamil waat na ba sonn ñu bañ parce que pare neen ci moom keroog bi ma waxee moom balaa appel bi di pare psychologically xam na ne kii dafa depress dafa desperate dafa obsess dafa obsédé ci moom dafa ruiné boppam financièrement est-ce que xam ngeen ne Dieyna amul kër gu pare Dakar fu mu mën a dugg su demee day loué te Momo Dieng ak mbokkam yi suñ ragalee yàlla rek xam neen ne def neen ci moo ndaw si def na ci moom lu mën a tabax étage ci laa ko jàppale maa ngi déggante ak naa léegi suba bëccëg guddi ngoon nekkuma ci waxantu waaye ba may wax ba niñ ko fase man Cheikh Ahmed Cissé waxuma ak Dieyna nekkuma ci nëbbatu yi nit ñi ne fii may laay fee message na ma pour mu leer nekkuma ci waxantu yi nii fenantu yi lu ma la wax dëgg la maa ngi déggante ak moom suba guddi bëccëg ngoon mais après bi mu gaañoo ba ñàkk pexe ñu di ko xasa ko tuumaal la ñëw ci man ma boot ko rogganti dalal ko gis nga su ma lay foon jamono boobu su keneen génnaatee wax ci ndaw si mën naa xaru dafay dee parce que dafa fragile dafa naïf ndax Amérique gii nu méttee kuy liggéey ci assisted living home mun a ekkati woot more than three hundred thousand dollars jox ko góor goo xam ne sa jëkkër la kooku danga nga obsess da nga depress wala da nga vulnerable and Momo uses that perfectly well loolu la Momo utiliser bu baax a baax soo waxee ak moom danga koy yërëm dangay am yërmande ci moom dafa am jigéen ñoo xam ne wallahi amuñ chance ci sëy am na ci góor ñoo xam ne amuñ chance ci jabar dañuy baax mën a yor jabar waaye kuñ takk nga dem dañuy baax mën a sëy waaye ay doomaraam rek lañuy te tase lii ma wax am na ci àddina am na ñu mel noonu mooy seen nattu na mii bu taxawoon ci biir famille Momo Dieng ne ku ma mësta teral yëkkatil sa loxo loxo yëpp ci suuf la jëm te yéen xam ngeen bu baax li ma wax moom moo téyewul kooyam bi di katt xale jigéeni ndakaar yu te amuñu sutura ñu weer ko bi loolu paasee nii man bi ma waxee woo neen yaay xale bu jigéen bi di ko menacé di ko saaga ba mu dem tëdd hôpital ngir pression saaga yi fu nekk lay jógee kan moo joxe numéro yaay Zeyna ak kan moo koy saaga lépp ci turu carrière moomoo carrière am moom moo amul carrière bu ñuy yàq waaye contraire ba ñuy defar la am parce que amagul carrière safagut ba noppite te sàppali jotagul jigéen ju nga sëyaloon ci farata ak sunna di def ci moom muy def ci yow nga tuumal ko ne moo wax ak Cheikh Ahmed te c'est pas vrai nga fase ko ci kaw loolu fase bu ñàkk teggin ba pare joxe numéro am ñuy saaga ndeyam ba ndeyam xëm dem hôpital tëdd seen yaram dawul ngeen ne carrière Momo moo tax ngeen di humilier doomu am na ñu gënoon a siiw Momo ëppoon ko bayre mais toroxal jigéen moo tax tey dañ leen di ketal pour ñu wëy mënuñoo dem jigéen kenn du ko toroxal tedd kenn du ko teral torox mënul nekk te Momo su tëddee ak ndeyjooram ci biir bàmmeelam xam na ne digganteem ak Dieyna rafetalut ci daf ko abusé psychologiquement financièrement daf ko abusé ci boor bu ne jigéen moo daan aaye boppam jaba jëkkëram waaye jëkkër ju aaye boppam jabaram ci moomoo leen ko xamee kon li ma dugal ci wax ji man ba ma yëg ko ndey Penda Njaay la ak xaritu Ami Jóob yi ak xaritu bébé bébé yi nii laa ko xamee ma yërëm ko ngir jigéen la ma di ko faral di la alerter pour nga defar sa sëy jigéen mën nga koy utiliser ba mu jeex te du blessew mais ngacc nit ki ba mu jeex nga sànni ko baadoo la moo koy def ak jaam waaye gor mënu ko te même Ndeye Penda Ndiaye bi moo arrêté Sabel Dieng Pama Dieng jox ko ñoom moomoo ba ñoom jubootuñ moo tas kër gi moomoo Dieng ak ñoom sa fama pa Pama jubowuñ te ñoo bokk benn bàyyi kan moo leen jaxase nday penda moo dem ci ñoom Pape enregistré seen conversation jox ko ñoom Momo même nday penda moo wax ak Adamo même nday penda moo ñëw ci man jaay ma kaa bi ngir na man défenseur u jigéen laa xam na ne bu ma ko waxee ma mer mais man dama tey ba mu gi am accès gis nga bu nga tuumaalee Sidi Diop xam nga Sidi Diop euh, le 28 le 28 novembre bi Paris yëkkati na téléphone woo la yow Momo ñaari yoon wuyu woo ko mu message la tontoo ko xam nga kan nga rappelé Momar Momar ak Prince Cheikh yi Momar nga rappelé Sidi mer na dootut la woo sa moroomu artiste xewle dem ci Wally dem ci Pape Diouf dem fépp woola nga bañ ko wuyu ngir danga am mbañeel ci moom te mbañeel gi du dara lu mooy ay jigéen yu ñàkk fayda wana la ñaari yoon Sidi suma doom la kooku man maay bàyyam maa ko ngemb ma nekk ci ginnaawam waaye bugg a disassocier moo tax sa publicité wu ma berse bi ma toog bàyyi noonu ngir coow li daf ne kur nga tuumaal ko lan la la di Diop def soo foogee ne yow yaa nangu Ami jóob ci moom dangay ngay sa bopp li nga tal ak li ngay ngër-ngëri nit ñi passé neen étape boobu nit ñi ñun ngi ci nan la ñuy gañee disque door mais pas bajo bu neex te yow li nga yor gudd rëyut luy problème bi carrière musique mënta ànd ak téye ay jigéen di leen ngacc koo ci utiliser ba mu jeex nga dem loolu mënul nekk tey dangay seet ne sa diggante ak sa moroomi musicien dara rafetu ci te nii nga def Jeynaba noonu nga def Diarra Baas mu lay may connexion connexion boole la ak ay nit nga koy utiliser di ko fen ba mu bàyyi la dem sëy ak bastion mais bàyyiwuloo ko mu sëy message woote su fayaan yow lay waxal ba delluwaat ci jëkkëram ba sëy ba tas na moo tax ki nga gën a bañ ci àddina mooy bastion à cos de Diarra Baas yow doo téye jigéen doo bàyyi jigéen te jaara ci ngor la nekkoon ak yow ci jom ci fulla ak fayda ba nekk bi jeex mu dem sëy munoo ko bàyyi li tas sëy bas sa loxo mu ngi ci yow moomoo jeg xam nga bu baax li ma lay wax dama munut nag jiisuma moo faalaa di sedd sedd lu ñu foog ne dangaa yaru fekk ñetti jikko yi mu ngi ci yow dangay taal dëkk bi ba pare ne patt noppi ne doo tontu suñu waxee nga ne Youssou Ndour du tontu muy benn ñaareel ba bës dafay dimbali ni waaye yow sa bës bi daf laa rey ba nga dee xamatoo fooy taxaw sa tànk ndax tiwaawan kër ga nga doon dem gàmmo ji ngir taalibe cheikh nga sa bàyyi taalibe cheikh la yow taalibe cheikh danga leen bàyyi bi nga génnee sa benn singal ne mënatoo faa daal ndax nit ñi dañuy bari nga war leen dematoo sa tiwaawan ziyaare ji tëngéej gi nga dëkk nga di leen ndamoo ko tiitaroo kilifa yi dañuy dee sa doo dem julli nga fay ñëw def sa soxla dem respecté woo benn lébu moo tax kenn faaleetu la ba pare bëgg jël Pa Moussa dóor ko ci kaw lébu yi ne moo wax ak man Pa Moussa tam maa ngi déggante ak moom kerek ba ngeen ko tuumaale mu estaté estaté tasaaroo laa fexe ba jot ko mais ndeysaan ndeke gor boo ko xam ba situation taxaw mu ne ma Cheikh maa maag moomu ñëw ju doondoor benn kër su dee taxawoon ma dee ngir moom lim ma tuumal moo ma naxar mi mënuma koo gaañ te moom xam na ne óoluwul ci nit àddina ku ma raw waaye suñ ma tooñee danaa fayu nag li ma gën a métti mooy mu tuumal ma ne maag jabaram dañuy njaaloo te suma ma jabar nekk jigéen di seetaan nekk en état rusut ragalut ci loolu xoolul loolu lépp mu ñëw di ma tuumaal ba àdduna di ma mbàcc mbàcce loolu moom ma mer loo may estati waaye man mënumaa yàq moom su ma yaram dafa daw su ma yaram dafa daw ki nga ki ngeen tuumaal yéen famille moom ne mooy katt jeey na te Pa Moussa moo jàpp ci sëy bi ndax su moomoo daan utiliser Jeyna ba Jeyna mer moo koy calmer ñoom ñaar ñëpp am naa leen ci téléphone mais waxi góor wax yu rafet rek amul dara lu ma fi wax loo xam ne ci Pa Moussa lay jógee amul te yéen ñi may ñi dégg wax xam dingeen xam ne lii waxi Pa la Loco la du wax mais nag maa ngi koy dégg su ma taalibe la léegi su ma njaboot la bokk kon benn coow jóg ci sa jabar mu leer na ne yow yaay def jikko doomaraam jéy naa nga tuumaal Sidi Diop jóge ko ci Sidi Diop tuumaal sa jabar ba fase ko ci jóge ko tuumaal sa meilleur ami mais kan moo set finalement kan moo set te yow moomoo nit ñi xamuñ waaye yow xam nga ne bu ma Pa Moussa joxoon ay information non cas bi du demee nii yow xam nga bu baax carrière musicien mënta dem fekk musicien bi nekkul walliw te walliw du bañ nit walliw du yàq walliw du jëw walliw du sos walliw du fabriqué mënul nekk te à cause de yow Ndeye Penda bañ buum la bañ moo tax mu bañ sa jabar di ko xeex Ndeye Penda Ndiaye mii moo jël tasu Momo Dieng yóbbu ko topp kaa ba ko fa ndaw si fekkee commentaire la supprimer commentaire léegi déglu leen li taxoon ma fomm di fommaat di fomm di fomm dafa lu ma bëggoon ngeen dégg xaar leen leen turi Ndeye Penda Ndiaye bi ah yéen koy dégg déglu leen. sama yaay xaw ma ko man duma ko déglu. billaahi saf na ba noppi rek laa ciy déglu te challenge yi laa koy dégloo ma ñàkk sama ndey ma ngoone laa xam te moo ngoone li ñuy wax bariwul mooy bataru waale balaa ko sekk ak jabaram. injustice bi mu koy teg. damaa gis menace yi mu koy menacé. déglu leen bu baax déglu leen bu baax ci teelu bi aadamoo nee na ma ngóone la xam ak jabaram jabar ji mooy Ndeye Penda mi jaay moomoo ci Cheikh Ahmed jaay ko ci Adamo déglu leen bu baax Adamo làmmiñam xaw ma ko man duma ko déglu. billaahi saf na bon. nee na moom xamut Momo du ko déglu te wallaahi Momo musta woo Adamo amut numéro kon Momo Dieng set na ne yónniwut Adamo maa ngi ubbi commentaire yi tuuti. kon Momo Dieng set na ne yónniwut Adamo xamul Adamo waxut ci Adamo léegi déglu leen Adamo mu waxal boppam. laa ciy déglu te challenge yi laa koy dégloo ma ñàkk sama ndey ma ngoone laa xam. te moo ngoone li ñuy wax bariwul mooy batëru waale balaa ko sekk ak jabaram li may wax ñoom bariwul mais damaa gis injustice bi ñu koy teg damaa gis menace yi ñu koy met kon leer na fexe naa tey ci suma fomm fomm yi parce que Adamo teeyul mënul communiquer fexe naa ba moom mu waxal boppam ñi ko yónni parce que su ma ko waxoon mu weddiku kon moom nee na xamul Momo waxut ak Momo loolu dëgg la moomoo jee xamul aadamo kon ndey Penda Njaay bi ñëw ci man yàq deru moomoo ak jabar ci moo dem ci aadamoo yàq deram léegi may leenu ma tegal leen beneen ojo aadamoo aada eh, génnal ci Cheikh Ahmed génnal ci man duma la arrangé day ma ma ñëw sa audio yow aadamoo nga nga wax nga dégg bu ma kenn laaj fu ma jëlee audio yi xam nga yow aadamoo nga ne xamal nga jey naa lu bari am na loo ko xamal xam nga ci moom lu bëree bëree bëree bari bëri waa déglul sa audio bi jawar jawar ko gën a baax jey naa mi ko gën a baax man jawar sa dama ko xamul mais tamit di ma di yàq dem nag naan moom moo jeg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax waaye nee na jabar ji man dama ko xamul kon yow aadamoo yaa leeral sa xarit nga yónnee vocal bi na koy yow xamoo sax Dieyna Adamo lan ngay waxati léegi lan nga mën a waxati ci Dieyna Ada lan nga mën a waxati ci Dieyna sa audio la ma tegaat na ni tey dégg déglul jabar jabar ko gën a baax Dieyna mi boo gën a baax man jabar sa dama ko xamul yooyu tamit di di yàq dërum rek nag naan moom moo jeg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax yow buñ gisul kon leeral nga yow xamoo Dieyna fan laa jëlee sa audio bi xamoo ko te xam naa ko balaa ma naan la première ma téye audio bi noppi parce que yow teeyuloo dama lay lëbëj lëbëj rek ba nga wàcc si suma géem nante bi. waaye wala boog. <laughs> waa léegi aada wi fi nit ñaa ngi xaal xaar du la la Dieyna kooku maa ko boot di ko coaché lu neex ndànk-ndànk nga ne ko dul ñu duulalal duulalal jee naa léegi yaa ngi Ndeye Penda Ndiaye ak Mangone <laughs> mangoone yaay weeru rek Ndeye Penda weeru nga li nga ma wax ma bañ man damaa vérifier moom nga dem wax Adamo moom mu koy utiliser ci amaat buzz pour ñëwaat ci kaay parce que Cheikh Ahmed mooy capot bi léegi nandite piir la moo tax kuy sëq ak man wax wax naa leen ne da ngay am gàllaaj ba pare tey am preuve ba pare bul gaaw a sànni léegi moo lan ngay wax waa koñ ba yaa leeral àdduna yépp ne xamaloo jeey naa dara dara dara dara dara dara dara wax ma ñamalaat leen audio Ado jabar jabar ko gën a baax jeey naa mi bu gën a baax man jabar si dama ko xamul mais tamit di di yàq dërëm rek nag naan moom moo jëg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax waaye yow buñ gisul kanamam dara di dem ci essai amal si sa muy toog di dul dafa yomb booy ku fi dul ñu dural kon leer na leer na ne xamoo ko yaa wax ne xamuloo ko dara dara dara dara dara léegi nag bi ma amee audio bi ba pare di tester di xool yow ndax amal nga jéy naa dara moo tax ma nangu laa may confrontation pour que yow nga xam ne ci jikko doomi xaraam nga nekk ndax yaa ngi may yaa ngi ma tagg-tagg bu rëy mais sénégalais yi dégguñ ko yaa ngi naan li ma doon def man Adamo changé na ak quatre-vingt-dix pour cent yow léegi loolu ngay def ça veut dire que man dama baax pour kaay yow da nga bon pour kaa mooy sa métier loolu tagg bu rëy la mais nit ñi dégguñ wax bi ma ree bàyyi la ci biir ma bàyyi la ci biir ngay ratatati rek doo teey léegi nag xaaral leneen ba tey say audio de Adama audio bii yaa ko yónnee jaba danga def live da nga def sa benn vidéo nga def wax wax wax wax nga nga yónnee Dieyna audio bii. man dama ko ni fay ñuy wax yow yaay dem fay si seen ñeneen ñi pour yàq seen der. xam nga da nga koo téye ne ko bu mu génn tey bu génnee ñuy doog a génn fi mu toll duñ wax de xam nga Bamba woon na Omaro Omaro woon na ma ñaan dama ne ko ok mais danga nga xamul rek maa gën a garaawu Cheikh Ahmed Cissé foofu jay naa du ma moromam sax bu dee yàqante rek maa ci première numéro un bokkuma ak Cheikh sax. ndeysaan oh. nee na bu dee yàqante rek maa ci première bokkuma ak Cheikh Ahmed maay numéro un ci yàq der. Adama léegi man ma bind man ma ne gée naa ne bul bul ojo da nga am classe trop bul vidéo mais moom ma bind nga yónnee ko ajuma lan laa bind ma ne ko Adama ça va depuis boobu ba léegi yaa ngi wax rek te tontuwuma la parce que aw ma jot bi nga am damay liggéey wër di wax ak di wax si nit yi du sama métier lii la ko jee naa tontu mu tegal ko ci deuxième bi bu ma demee bay tontu wante wax dëgg yàlla dinaa tontuwante ak sama nawle Adamo man nawlewuma la lépp loo yor si man comme preuve génneel gaaw bul si xaar dara dara nag defal live léegi léegi nii boo waxee ba pare nag nga ñëw ma doubler doubler liñ la fay pour nga duul li laa bind jox ko jéenaa na ko jam ko Adamo mu jam ko ko aada <laughs> ba tey mënut a xam ne bind yii nii maturité bi mu àndal sëriñu nante bi la mënu koo xam lii laa wax Dieyna na ko cabaxal ko ko ba pare nag bloqué waatal ma ko toog ma liiraatal leen message su Dieyna bi <laughs> dafa am classe nag <laughs> Adamo ça va depuis boobu ba léegi yaa ngi wax rek te tontuwuma la parce que awma jot bi nga am damay liggéey wër di wax ak di wax ci nit yi du sama métier deuxième bi bu ma demee bay tontuwante wax dëgg yàlla dinaa tontuwante ak sama nawle aadamoo man nawloowu ma la lépp loo yor ci sama ci man comme génneel gaaw bul ci xaar dara dara nag defal live léegi léegi nii boo waxee ba pare nag nga ñëw ma duble li ñu la li ñu la fay pour nga duul ci la Adamo def live ma dem yéeg ci live bi pour gësëm ko ba xam ndax am na dara ñàkkal suma bopp fayda wàccee suma niveau pour xam lu Adamo yor ma vérifier ko ba xam ne amul ma ñëw taal suma live tey ndànk def maron bu soft taal làmp yi ñu wër ma ma wax ndànk <laughs> dara méttiwul kon ba pare aado yónnee lii ma ñamal leen man duma ko di fay ñuy wax yow yaay dem fay Ahmed Cissé ak ñeneen ñi pour yàq seen der xam nga da nga koo téye ne ko bu mu génn tey heure bu génn mu leen ndaw si daf ma téye pour bu ma génn tey fekk man maay contrôler <laughs> man may contrôler li ma neex naan ko bindal lii waxal lii suñ ko message mu ne ma papa message ne ma ne ko ajul loolu su demee ma ne ko doxeel nii defeel nii ñëweel nii di ko contrôler psychologiquement dalal ko ba ndaw si dal xërtal ko ci julli ak jàpp wirde bu dul jeex ndax wataayinoo bi sabri wataayinoo bi sabri wasalaati dimbale ko leen ci muñ ak julli ma ne ko muñal tey julli yàlla dina la àtteeg moom moo digg ba cëgg ndar kàmbu te aadama may ma ko matut yàpp mais dinaa ko firiir tegee ko boor dimbale naa psychologiquement ba mu dal di ko contrôler aada moom mu ngi naan den koo fay waa den la noppiloo bis bu rafet laa doon xaar aada <laughs> tey baax na pour tontu <laughs> déglu leen aadama man duma ko di fay ñuy wax yow yaay dem fay Ahmed Cissé ñeneen ñi pour yàq si der xam nga da nga koo téye ne ko bu mu génn tey bu génnee ñuy doog a génn fi mu toll duñ wax. man maa ngi tardel affaire yi pour aada wàcc si suma kàmb mu ne ndaw see ma téye ndaw si <laughs> ndaw si living lay def maa goppale Amérique gii ñu nekk li ma mën mënu mais comprendre jigéen su ñëwee ci yow danga koy dalal ba pare mais bul ut vie ci vie jàmbur yi c'est trop cher dafa cher ma ne seetal leen ma aada ndax muy dund. xam nga Bamba woo na Omaro Omaro woo ma ñaan ma ne ko ok. mais da nga xamul rek maa gën a garaawu Cheikh Ahmed Cissé foofu jay naa. du ma moromam sax bu dee yàqante rek maa ci premier numéro bokkuma ak Cheikh Ahmed sax. yaa ngi dégg nee na bu dee yàqante moom mooy premier bokkut ak man xoolal ndeysaan aada te ngaa génn ci man. te ngaa génn ci man te ngaa génn ci man baaxuma de déglu leen bu dee yàqante may numéro un loolu la wax déglu leen jabar jabar gën a baax jëy naa mi bu gën a baax man jabar si dama ko xamul mais tamit di ma di yàq dem rek nag naan moom moo jëg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax waaye yow buñ gisul kanamam dara di dem di essayer amal si sa muy toog di dul dafa yomb booy ku fi dul ñu dóoral la kon Adamo leer na léegi nag senegal yëpp ñu ngi lay xaar xam nga gàcc moom amoo ko léegi nag li la Ndeye Penda Ndiaye wax ak Mangone te xam nga Ndeye Penda Ndiaye bi moo moo jël Mangone di doomi bàyyi di doomu bàyyi moo jën génne ko ci moom yóbbu ko ci waali pour mu tëggali waali biñ tasee la yóbbuwaat ma ngoone mu xaw a bàyyi wàll di tëggal di tëggal Momo Dieng ndey pend boobu lim la wax yépp ci Dieyna àdduna dineen toog déglu la nga wax ko waaye na nga xam ne ñoom ngay weer ñoom ngay tuutil ñëpp a ngi toog di seetaan yow wax nga ne xamoo ci Dieyna dara yaa ko wax nit ñi dégg yaa wax ne yàq der moom doo ci moroomu kenn yaay première léegi yàqal deram man de bi ma gisee problème am gis jigéen ñu ruiner ko financièrement psychologiquement mu am méttit am avortement ak ni mu méttee ak ni mu bëggee woon doom yi moomoo man dama ko masawu di ko xiirtal ci julli di ko jàppale di ko taxaw ba pare nag kalme ko ba am bés bu rafet ma ñëw tontu la ndànk léegi àdduna ngi lay seetaan ndaw si amu ci doom ëmb la ci am moom moo stressé ko ba ëmb bi yàqu mu fere xaalisam fere taam Momo Dieng xale nga li lay dimbale ci wëy mooy sa baas danga koy fonk waa tëngee jox leen cër def leen nit sa bës bi bu tax nga xeeb leen mukk lébu boo amee milliard ak nga am dërëm la yemale ku yaatu ndakaaru ba am étage lébu yee la ko jox fonkal sa mbokki lébu yi noo mën a mel bar ñi ñoo tax waaye tey xeeb nga leen tuutil nga leen joxoo leen cër kër ga nga daan dal tiwaawoon soo foogee ne am nga bës dalaat fa kër gi jëriñu ci yow ndax balaa ngay mën dara ñoo la daan dalal ngay gàmm complexe bu bon nga arriviste bu bon nga moo tax nga xeeb leneen la ca tegu sa moromi artistes yi nga def noon defuñ la noonu jaara baas ak bas cung seen sëy bi tas na am nga ci loxo ndax danga doon génn ak jaara mu lay defal mu romb la dem sëy ak ba sa xol bi mënu koo muñ mag lay défier directement yow yow Momo Dieng su fekkee ne yow mosuloo toog di xas jomaay mii nekk président ak Ousmane Sonko di wax lu bon ci Wally Seck ak Sidi Diop su fekkee musoo ko def na ma Cheikh Ahmed défier naa la tegal audio yi képp ku la ko jox benn poursuite judiciaire bu ci am wax ko ma teg ko soo noppee yaa ko wax soo ma ne teg ko teguma ko man may fen ci ñun ñaar la def waxuma kenn yow laa wax directement soo noppee rek yaa ko wax mais soo jëlee décision bindal rek bindal benn poste sa statut sax ne Cheikh Ahmed Cissé boo amee audio teg ko benn poursuite judiciaire du ci am yow ak la jox audio yi wax ko rek ma teg te tey su audio yi génnee nga xas Jomaay ak Sonko patriote yi bala nga yàq Keteme Wally Seck faramaare ni bala nga yàq Sidi Diop waa Sidi bala foo jëm mbaax du ci noppi mbaax ci xol la te sa carrière bii nga jël toog naan sa carrière sa carrière munoo koo yóbbu ci kanam munoo ko yóbbu ci kanam lu mooy nga yërëm ay jigéen loolu mënta nekk fii nga jël ay saafara di ko sotti baaramundi ba tëj baaramundi problème am ca ci la Pape juuf ak suba teel yóbbu baaramundi ci tribunal bañ gañee nga tëj bu waat bi vogue nga yàq kook sëriñ ba nga demoon Mali moo tax waali dama xamul nit yàlla xamal na la tontu bu soft la tontu daf ne du ma bokk ak bés moomu loolu yàllaa ko ko waxal keroog dama yuuxu te sa jabar ji nga toroxal nii sa jabar ji moo daan jënd ay billets moom moo jëng ñu fay dem ñu bari dañ leen di may billet <laughs> billet yi jënduñ ko ñu tuutee jënd léegi sa jabar nekk gën baax jëy naa mi bu gën a baax man jabar sa dama ko xamul mais tamit di ma di yàq dem rek nag naan moom moo jëg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax waaye yow buñ gisul kanamam dara di dem di essayer amal si sa muy toog di dul dafa yomb booy ku fi dul ñu dóoral kon sa niti démb yi ñépp ko bàyyi wanteel kenn rekk a des mooy sa frère sa nit yi la war a moomoo yépp ñaari fan ñaari at la maximum ñaari at bàyyi sa nit démb loolu rafetul jaaduwul du Diaw amul lu mu la teralut mais yow munoo ne yow say musiciens sax da ngay ànd ak ñoom ñu may leen xaalis ñu may la xaalis baatere la nga dem doo leen sa jox wala nga jox leen lu ndaw munoo koo amee carrière carrière générosité la ku la gën a généré ci musique moo la gën a dem ca kaw ca kanam kon li ma bëgg a wax yéen famille Momo nga sëriñ yi ngeen doon dem ak gerte yi ngeen di saraxe ci kër yi yooyu yëpp nopploowut Cheikh Ahmed Cissé yéen xam ngeen ne Momo dina takk ku ne waaye jabar ju mel ni jéy naa ci Momo yombut yéen xam ngeen ko xam ngeen ko su problème amee war ngeen a mën a taxaw taxawin bu rafet doxal doxalin bu rafet bi nga xam ne tey doo leen dem démb am na benn sër mooma bu nekk ci soko di saaga jéenaat di di di ko tudd bay tudd yaayam ci ku sëy seen càmmeñ jëndal ko micro or daan jënd ay billet su tëggee mu tëgg ngeen wër di maye influenceurs yi wër moomoo yëpp dañu maye billet ñaata jigéen ci yéen yéen a dem moomoo te jëndu leen billet kooku sëy ak seen frère sëy bi tas wallahi tallaay leneen war na leen lu may toog ci internet di ko saaga ngeen ne moomoo ngeen bëgg moomoo ngeen di weer moo ngeen di xas mbokk dafa am nu muy dimbalee mbokkam waaye ni ngeen bëgg a taxawee ni rafetul te lu ngeen foog ne ndaw si ngeen ko def tey ni ñaa ngi toog di seetaan te moomoo dina toj la ci keneen <laughs> du benn rek de xam nga coow yu bébé li génn ak Ami Diop am na yeneen coow yu war a ñëw bu changé wul ni ngeen di doxalee du yoon yéen mënoon ngeen a calmer affaire sax calmer ko ci naka jot ndaw si wan ko na ko ñun say njëkkee leen dalal ko xam ngeen ne moomoo la bëgg ba amul ci moom sago te bu ngeen génne woon teraanga jéenaa ci yéen billaahi luy des du bari man ñëwuma ma pour yàq moomoo parce que mënuma ko bi ko yàlla defar yëguma ko mais dëgg laa leen di wax ngeen di ko dégg xam ne waa ji neexut ba neexut waaye li mu wax dëgg la dafa am lu rafetul jigéen ji nen ne dafa bon jaaykati drogue la jaaykati yàmba cagala neen ko def waaye bonul ci moomoo billaahi wallaahi tallaahi bonul ci moomoo carrière moomoo moo ko gënal lu ne mu amoon ak doom moomoo moo ko gënal lu ne mu moo ko gënal bakkanam day liggéey ba semaine bi jeex mu yónnee ko moomoo toog yéen nag su fekkee ne bëgg ngeen moomoo te muy dëgg ci yéen ndax da ngeen di toog seen doom seen càmmeñ nekk ak jigéen jigéen mënal ko lu ne désespéré ci moom mu fase ko ci ay tuuma lan la moom moo fase xale bi yaa dem ci Cheikh Ahmed Cissé mais amul benn preuve dafay fen fase ko ba pare nag ne bu ko wax kenn loolu du fase de fase day am seede soo waxee moom moom naan suma carrière bañu ma ci bakkan ku ci war a toog ma nangam nangam amoo carrière loolu laa bëgg nga comprendre amoo carrière da ko amut da nga nekk ci préparation carrière mais pas carrière amoo ko. Euh, am su su live bi pare soxla naa Paa Madiène dama ko soxla moom duma wax ci moom ndax sa turandooram papa Malick si suma xarit la woon. waaye jabar ji mu takk mu ci buumi sëy mu ngeeg doom yoo xam ne cheikh leen ñu nga collègue mu ngeeg beneen doom ju am 9 ans njëkkoon naa sëy ak moo ko indi fii mu sëy keneen moo jàpp iddaam ba neex ko mu dem paama takk ko loolu dossier bi xam naa kaw ba suuf mais duma ko wax mais dinañ ci waxtaan incha allah mu bàyyi jabaru jàmbur mu dem sëyi su ko deful ma toog fi wax ko du début à la fin mais paama suma objectif mais ki muy sëyal jabaru jàmbur la sëy bi tasut ci lislaam xam naa lislaam xam naa sëy bu tas tasut te jigéen ju sëy 19 years am ñetti doomam ba ñuy dem collègue nga bàyyi ko mu nekk ak jëkkëram moo ëpp solo lii duma ci wax nag mais dinañ ko dox ci suuf bu sottiwul nag ma ñëw wax ko fii ku fi bëgg a suturaal sa bopp ñu suturaal la ku fi bëgg a suturaal sa bopp sama fu kon Momo Dieng ci boppam ni muy dundee du dimbale artiste kanam famille bi ni ngeen koy jàppale du nii sometimes doomu aadama danga koy jox li ñuy wax tof loof mbëggeel gu metti taxaw ak moom na ko lii du nii lii la waaye pas fu ma moo jaar ngeen jaar parce que moom ngeen yaakaar moo leen di dimbali mais nit boo ko yaakaaree da ngay fexe mu tegu ci dëgg soirée moomoo yi ñu daan mayee billet yëpp naa moo ko daan jënd den daan jël moomoo ba ci bunt bi mais léegi kenn jëleetu ko ci bunt bi kenn jëleetu ko ci bunt bi mais loolu benn pax la ci carrière moomu te koo nobul ngay sëy ak moom mu nekk mu nekk amerique neex naa naxanteel may ko ba mu ñëw benn semaine nga naxanteeg moom ak say gel boo paree doxal nekkul ne moomoo bi ngeen di gis saf naa ba daa saa pale ñëppay jënd billet de la gratuitement jey naa mooy def chaque semaine mu yónnee un million jënd billet mais Sénégal gii musique doxul dox boo xam ne ku ne dangay tëgg mu fees ñëpp jand bii doxul influenceur du fay bii jigéen bu rafet du fay bii ñun ñëpp duñ fay da ngay tëgg soirée bi fees nga pare doo mën a fay sa musicien <laughs> man xam naa man bokk naa ci nit ñu néew ñoo xam ne damay tiim musicien batare la jënd ay taabul dagg billet ba pare du ma jaaraat ci suuf nga mayaat ma xaalis wala nga delloo ma man kon su fekkee ne su fekkee ne jigéen ñi ñëw soirée moom yëpp ñooy jënd bii ñoo koy jënd waaye neen dem fee soirée ñu toog benn baa ngi ñu ngi ñoo ngi neen dem sàppali kon dégg ngeen Adama jawar ja ko gën a baax Dieyna mi ko gën a baax man jawar sax dama ko xamul mais tamit di ma di yàq dëgg rek nag naan moom moo jeg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax. waaye yow buñ gisul kanamam dara dem ci essai amal sa muy toog di dul dafa yomb booy ku fi dul ñu wala boog. Badou Diaw ak Papito amul lu leen moomoo dul bàyyi sa carrière yéen famille moomoo. su dee bëgg ngeen carrière na transparent ak yéen di wax dëgg teg mbir yi ci yoon ki mu bëgg mu takk la ki mu bëggul mu bàyyi la mais yéen famille Momo ni Dieyna doon yëkkatee xaalis di leen jox di yëkkati alalam ak effortam di jaabante senegal Amérique pour Momo mu gaañu ngeen xañ ko kum bëgg ndax jël ngeen ngor tuuti ngeen delluwaat ginnaaw ne kii dee ba muy neex mu doon bégal suñu càmmeñ xara ñu dalal ko di ko dégg di wax ak moom di seet nan lay def ak nu mu dul def déedéet contraire dangeen ngeen boot moomoo taf seen wet ba pare di saaga xale bi di ko xas maa ngi leen di yëgal su fekkee yëgu leen ko ne ëmboon na seen biiru càmmeñ seen biiru doom moomoo naqaral ngeen ko ba mu avorté naqaral ngeen ko ba mu dem gisi psychiatriste parce que bopp bi jaxasoo na ngir métti xajul ci moom li moom bëgg naa ngeen xam ne famille moom moo dem ngeen ci sëriñ yi ba ñëw ba saraxe ba yóbbu seen gert léegi wax na lan ngeen ci mën lu ko doon solve lu yomb la kii moo bëgg moom moo koo bëgg from the get go moom moo musu koo bëgg kii moo ko bëgg. gaañu na utiliser ngeen ko ba soxlaatu leen ko sànni ngeen ko mais ma saw leen ko konoon coow du yegg si fii fi may daanalee te di fa tëjee mooy Momo Dieng man Cheikh Ahmed Cissé ma ne bu dee amuloo fooy waxee lu ñaaw ci Wally Ballago Seck ak Sidi jóob ak Ousmane Sonko ak Jomaay defal benn vidéo ne su ko amee na ko teg ku ko teg contrôle poursuite judiciaire du am su ma ko tegoon ma dàq dul ci àddina soo noppee yaa ko wax lan la la Wally def lu la ko jaral lan la la Sidi Diop def lu la ko jaral demal nga Wally ba Mali wala doo ci dal du suma wéykat de du ma fansam de mais ndeyam du ko gërëm ba sénégalais yëg ko ngay taalibe seex sa baay di taalibe seex benn morso tax nga xeeb Tiwaawoon doo fa dem mbiram cheikh mii ku ko xeeb doo dem waa tëngéej bar ñi gisuñu seen bopp ci yow te yow leen defoon doom paa yi sampal la maire sampal la jeunesse bi di la topp nga xeeb leen parce que lan da nga am tur mais libu yaa ngi lay xaar libu amal milliard boo ko fonkul bëggul Pa Moussa bi ngay wax ne moo ma moo ñëw ci man moo ma jox sa mbir li ma fi wax yëpp dara yooni Pa Moussa ne kon da nga ko sosal da ko tuumaal mais nag maa ngi dégganteeg moom te lam ma wax moo ma jooyloo mais sa carrière na nga xam ne yaa ko yàq yaa toroxal jigéen yaa fenal say nawlay artiste yaay égoïste yëg sa bopp foog ne yow la Kaliphone sa tontu jox naa la ko Adamo génnal ci man doo mës am ndam ci man tey gàcce gii nga am gàcce gii nga am yow Adamo tey wallaahi tallaahi waroon nga ko rusa am ñëpp jey naa leen parce que jigéen la te dafa am méttit Adamo yow Rita bi mu amee problème ñag bi sa ñag bi nga supporté ci kaw jigéen bi amee problème ak Rita Rita di jigéen di sëy am jëkkëram jëkkëram di doomaram di imbécile mu xam ne Sénégal ku tas ñu xas la mu dem liggéey jëkkëram pour mën a takk pour sëy bi mën a toog nga di ko xas ci kaw ñag boo xamul te nga ne da ngay faral sénégalais maanaam seen combat sa yéen amu leen objectif yéen ngeen ne man gambien la damay yàq deri artiste sénégalais mais Rita di actrice mu seeg ñag nga ñëw faral ñag bi ci kaw Rita <laughs> te ne man gambien la damay yàq deri sénégalais waaw mais ana ana ana oh, da ngeen di daanu da ngeen di daanu Rita moom actrice wala Rita moom ndeyam sëyit wala amul bàjjen ci réew mi Adamo nga ne man Gambien la damay yàq dari artiste sénégalais sénégalais waruñ koo nangu lii nga wax yow même boobu noonu ñagi doomi xaraam bu katt ndeyam bi jàpp xale bi di ko dóor xale bi traumatisé wu bëgg a sëy ak nim jongoma mu dem ba wuti sëriñ pour liggéey jëkkëram jëkkëram ñàkk sutura weer ko ci àddina bi yow Adamo nga ne sénégalais nga nga toogaat faral ñag ci kaw sénégalais xeex jigéen ci kaw góor Ibn Thiam où est les logiques Adamo ana logique ana mais Rita li mu def suñu yaay yàgg neen koo def suñ baay yàgg neen koo def Fatimata bintu rasulillahi den ko liggéey ngir mu nopp Seydina Aliou Sey mais tey Cheikh Ahmed Cissé la ñuy xeex parce que day xeex artiste sénégalais suba Rita den koy xeex parce que ñag bi nga faral mais où est la logique te Adamo billaahi wallaahi taalaay moomoo jee musut laa ñor musul laa ñor amoo sa soxla ci moom bi ma la fekkee ci sa géem ñu sa ndey sa yaay nga mami weng yooyu nga xam ne toojuñ ko wa nga war koo defar defaroo nga dem di jouer ji fleur yi doxatul nit ñi joxatuñ la nga bëgg a dellusiwaat Penda Njaay ak Mangoone utiliser la ndax denn ci waali leen bokk te waali yëgul xamul bokk ci loolu nga bëgg a duggaatee ci kaa bëgg a jaar fi waaye moomu mosulaa ñor moomu du sa combat ñi la xam xam neen ko moomu du sa komba si yow yow nga ne sa doo ko déglu xaaral may ma ñëw wan la nga ne doo déglu moomu xaaral rek nga ne yow doo déglu moomu sàppali ba noppi rek nga xam déglu xaw ma ko man duma ko déglu billaahi saf na ba noppi rek laa ciy déglu te challenge yi laa koy dégloo ma ñàkk sama ndey man ngoone laa xam te moo ngoone li ñuy wax bariwul mooy bateeru waale balaa ko sekk ak jabaram li may wax ak ñoom bariwul mais damaa gis injustice bi ñu koy teg dama kon xam nga Adamo képp naa la yow nga ne doo déglu moomoo saf na ba noppi ngay déglu te challenge yi ngay déglu kon yow moomoo taloo ko musicien pour nga dimbale ko da ngay yëkkati xaalis di ko jox indil ko mbooloo promouvoir ay son ak concert di consommer musique am comme man ni may def Pape Diouf mais yow nga ne doo ko déglu kon moomoo ñoru la bi ma téegalee sa ndey nga dem ci jeu yi nit ñi joxe fleur ba sonn mënatuñ nga bëgg ñëwaat nga bëgg porte mais man nooyu ma dangay dem ci soko mi nga noggatu woon noggatuwaat ko waaye bul di jaar ci man bul di def loolu dégg nga loolu baaxul Pape Mbaye noonu na la bàyyil Cheikh Ahmed Cissé waaye nga ne doo dégg démb ma ñëw di la gësam may la confrontation bi di seet yow lan nga yor moom nga gaaw riposte tegaat sa live parce que ci man nga mën a amaatee pour dellusiwaat naan tuut ma rey ko nangam nangam maa la doon may ngay wax parce que xam naa ne boo amoon loo téye di noppi waaye bi nga bañee déglu rek laa xam ne amoo loo téye Adamo Wally Seck dafa tiim Mia Guissé di sànni xaalis ci suuf nga ne loolu baax na mu dem màkkatul mukarrama tiim kaaba gi di ñaanal ndeyam ju baax ji barongoñam di tuuru ñu filme ko nga génn ñaaw lu loolu saboote dem màkk ak waali ba ne cagaj yëpp dañuy dem kattante dem màkk xam nga lu taxoon nga def loolu parce que danga am xew waali newut la félicitation loolu nga mer nga saboté dem màkkaam saboté ñaan gim ñaanal yaayam nga ne da nga juboowaat ak waali mu sànni xaalis ci suuf nga ne ko defal lu la neex analogique bi ba pare kaay ma xamal la dara ci Wally Seck Wally bandi la saay-saay la te Wally duy bañ dafay uus Wally su uusee rek uus na xam nga kañ la la Wally uus bi nga fekkee Amady Badiane ak Ameth Thiou di ànd ak bàyyi Wally ba Wally màgg ñu ànd ak moom def ko xarit def ko doom ba pare doon patron walla doon seen patron sa xariti bàyyi sa baay la waaye ñoom dunduñ baay doom dañu dund ne waali mooy seen patron nga jaxase leen parce que Adama yow mënoo kaa saa yoo wax rek ki lay kaaloo danga koy tudd Amady Badiane man bi ma dégg Amady Badiane yi bëri laa xam ne Amady Badiane moo lay waxloo loolu naqari waali ba mu tongoog moom balaa jaaga di génn àddina la leen jubale ba tey diggante boobu rataxatu ci la la Amady bàyyi waali bala waali ci la la uusee ndax yàqal xaritoom bi mu ñàkkee Ameth Thiou Amady Badiane la dese nga ñëw yàqal ko Amady Badiane moo tax Wally dafa wéet ci biir xolam loolu yàq ko def lii la la lii la la uusee waaye ay félicitations lii Wally safu Wally bandi la Wally di cagat loolu daf ko saf mais li naqari Wally dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li nga ko def digganteem ak Amady Badiane ba pare mujj di teg vocalu Amady Badiane nga ne yow da ngay demaat foofu ñu bëgg la mënuñu laa bëgg billaahi wallaahi tallaahi munuñ laa bëgg ba àdduna tukki maanaam da nga yàqu-yàqule te yëgoo ko Ameth Thiou demam bi dafa marqué Wally parce que Wally day miin Wally day miin nit dof la bu la miinee yaramu neen sax mën na ko def sa kaw am million na la tiyal demal mu ñàkk Amady mu koy jooy te noppeegul yow nga dugg ci digganteem ak Amady Badiane jaxase ko moom baw jaaga ci lalu dee la leen jubale méttit boobu nga teg waali képp ku jege waali bañ na la te yëgoo moo tax doo dégg kenn ku am valeur ci waali ñëpp dañ lay utiliser rek parce que xam ne ne mun nga ubbi say yu ndaw yooyu noonu wax nit ñi dégg la ñoom ñu dem seen yoon mais waali santiratud la moo tax bi nga ko joxee <laughs> non waali du nit keroog bi waali téye sa xaalis bi ba ne teraanga gi baax na waaye yaru xaw ma nu mu ko waxee nu ko waali waxee yaru rek xaw ma something like that ma ne allahu akbar papa coon yar na doomam alquran yenentu dafa wax mu ne al ikramu laa yarudu nga kenn du ko delloo waali bu delloo woon sa teranga rek doon jaam mais daf ko téye ba wan la ne li nga may jox ni jërëjëf mais li ma ko gënal mooy yaru réglé nga bañ di ma jaxaseeg Amady Badiane mais du ca yegg nante la waali suma taalibe la ci nante yi la waaw daf ne regle rek regle mooy bañ a duggati suma diggante ak sumay nit ñoo xam ne bi ñuy formé xamoo woon fan la bi ëmma di bajaan doon summi yéreem di jox waali muy sol aadamoo yëgoo ko tey diggante boobu yàq nga ko Doro Gueye wax ngeen a wax wax ba mu dugg kaso te ba tey talu leen ko amalu leen ko benn njëriñ benn njëriñ ngeen ko amalul moo tax waali santirut la waali yëgut la yëgut la waali yëgut la parce que danga ko gaañ ndeyam ji tëdd àllaaxira danga nga yóbbuwaale naqar ci xolu jaaga billaahi wallaahi tallaahi ndax papa gaañu bàyyee ko doomam waali mën waali waali mënal ko lu nekk muy doomam taxaw palaasu taaw te du taaw di def lu rafet ci fami coon amet cu dem jaaga di régler loolu mu boole kook deewu moom yi loolu yëpp mitt ci xolam Adamo xamoo lu famille bi di dund nga dugg diggante di bajaan ak Waly loolu gën a gaañ jaaga naqar boobu la ñibbee àllaaxira moo tax soo taxawee daan Waly laay topp damay damay ree man mi xam damay noppi rek ma xam ne bu Wally sañoon tey dootoo tudd turam Wally Ballago sekk bu sañoon yow aadama da ngay noppi ci moom parce que danga ko gaañ góom bu dul wér ba àdduna tukki mu nekk magam moom yi nga xam ne moo njëkk jàpp ci carrière am balaa coon Seck mu feebar yaa toog ci internet bi siiwal feebari moom yi ne dafa cancer dañoo dagg ay wenam keroog dama tiit famille bi yëpp di la seetaan te yow nga ne faramarin nga ne ci waali nga bokk muumeen ci diggante dund ak dee waali di ko muñ muy métti muy dundal ay fansam ci musique ndax musicien la Touré Kunda dem neen bay woy kenn gaañu ñu woy yaa toog ci internet bi wax ne moom yi dafa cancer jaaga di la seetaan di jooy mag bu em ni moom nga foog ne tey waale boobu gis la nga jooyloo yaayam waale boobu gis la tey nga def loolu waale boobu daf lay bëgg du la bañ mais santiru la lii mooy piir réalité foo mos a dugg na danga leen di défendre ak yàqal nga leen ndax te yoo xamoo sa spécialisé nga génn yow spécialité bi moo doon ku kattante nga jot vidéo bi oo ko laaj ko mu xaalis jox ko lës joxe ñu kat nga dekk coxeur parce que yow mongol nga xaaral ma woon la kayit bi la almaa yi jox bexin dorong kayitu bexin dorong leen la jox mooy ku wérul koo xam ne nii mënta mënta def dara donc loolu nag soo ko amee moo tax ku la porte plainte Allemagne sax duñ ko mën a jàpp parce que bexin dorong la nga danga danga handicapé xaaral ma tegal ko ñii behindorongam kayitu behindorong donc tey Behinderung. Behinderung. Behinderung. Ada Behinderung. Behinderung. kayitu Behinderung nga am. wéroo doo nit. uyul. Behinderung. fu ngeen ko gisati woo leen ma ko Behinderung. Behinderung. parce que tubaab yi den laa testé xool la xool xool xam ne doon nit ñu jox la kayitu bexeen dorong moo tax miyaa dem porté la plainte tubaab yi nag kii wéru du ñu koy jàppee moo tax homme d'affaires yi doon jëflante yooyu di la confier ay dossier nga leen di waxal laa xamul ñoom fu seen tuun la ñuy xalaatee wala lan uy Behinderung. Aada Behinderung. Behinderung. Behinderung. Behinderung. kon yow Adama. fàllu la <laughs> sa taalibu Cheikh Abdoulaye Tilala la Chérif Tilala Fall waaye dama bëgg nga xam ne tooñ nga ko tooñ nga ko moo tax bëggul sax seen image dajaloo waat parce que Wally day uus ñi xam Wally xam nañ li may du mer dalay uus eh, quatre-vingt bu saagaa noonu ba pare pare na dalay uus waaye yow behin dorom yaa ñëw jaxase mo oh. li nga def li nga def jaaga surtout keroog bi nga toogee ne moomoo eh, moom yi eh, dafa cancer dañoo dagg weenam yi non keroog tooñ nga jaaga Aliou Seck ci la la meree ba tey mm-hmm. kon Béxin Ndorong man ak yow nekkul komba li ma la doon may fii laa la doon iri dajale say preuve moo tax kon leer na léegi kon àdduna dama bëgg ngeen xam ne aadamoo mu ne du déglu Momo Dieng xamut Momo Dieng Ndeye Penda Ndiaye bi ma woo man wax ma moo wax aadama moo ko yónni lu ñaaw ngir uññi sutura Momo Ndeye Penda Ndiaye boobu moo arrêté doon ñoom Pama Dieng teg ko ci famille bi jaxase leen Ndeye Penda boobu moo bañ Momo jee ndax jëkkëram dafa biiral mu fonk fonk doom ji ñu tuddee ko ko loolu la ko mere moo jaxase femme bi ak aadama moo ko yónni lu ñaaw waaye du Momo Dieng wax dëgg yàlla moom moo bon na de waaye defu déglu leen aadama mu waxal boppam moo tax ma doon fomm di indi di indi pour iri ko léegi wax na mu dégg ma enregistré déglu leen sama yaay xaw ko man duma ko déglu billaahi saf na ba noppi rek laa ciy déglu te challenge yi laa koy dégloo ma ñàkk sama ndey ma ngoone laa xam te moo ngoone li ni wax bariwul mooy batteru Wally Ballago sekk ak jabaram li may wax ak ñoom bëriwul mais damaa gis injustice bi ñu koy teg damaa gis menace yi ñu koy yi waxal leen ma ko du menace menace mooy raxas menace <laughs> benn ndrom léegi aada wax na li yéen a déggal seen bopp li waa déglul nag bi mu doon wax ak benn waay te naan ko xaw ma jéy naa xamaluma ko dara. déglu leen bexiñ ndorom jabar jabar ko gën a baax jëy naa mi ba gën a baax man jabar si dama ko xamul mais tamit di ma di yàq derum rek nag naan moom moo jëg nangam tamit loolu dañ ko bàyyi tamit loolu baax waaye yow buñ gisul kanamam dara di dem ci essai amat sa muy toog di dul dafa yow bu booy ku fi dul ñu dural la bàyyi wala boog déglu leen kon aada moo leeral na ne xamul xale bu jigéen bi moom teral na loolu léegi nag su taalee live yéen mbokki moomoo jëng yi yéen mbokki moomooy laay wax li ko ndey Penda Njaay wax rek lay wax du paa musa du Dieyna seen diggante ak Dieyna sëy moo fa nekkoon ak teraanga tas na na fa jàmm am ku nekk dem sa yoon mu rafet moo gën mu ñaaw mu rafet moo gën mu ñaaw léegi déglu leen waxal boppam ngeen Omaro Omaro woo na ma ñaan ma ne ko ok mais da nga xamul rek maa gën a garaawu Cheikh Ahmed Cissé foofu jay naa du ma moromam sax bu dee yàqante rek maa ci première numéro bokkuma ak Cheikh Ahmed sax. ndeysaan. Behin mooy wax. wax xam nga Bamba woo na Omaro Omaro woo na ma ñaan ma ne ko ok mais da nga xamul rek maa gën a garaawu Cheikh Ahmed Cissé foofu jay naa duma ma sax. bu dee yàqante rek maa ci première numéro un bokkuma ak Cheikh Ahmed sax. yéen a ko dégg léegi nag dem leen mu tàllaay fam ngeen déglu li ko Ndeye Penda wax ak euh, Mangone rek la mën a wax waaye benn famille Momo Dieng waxu ko dara du yaayu Momo du baayam ja ca àllaaxira du ay mbokkam Ndeye Penda mooy soos fii soos fële loolu na leer nañ. te aada wax na carrément ne moom xamalul xale bu jigéen bi dara Behin Ndorong wax na loolu wax na ne moom mooy première ci yàq der moom a gën a garaaw foofu loolu tam leer na léegi déglu leen bi mu waxee lii bexin Ndorong man lan laa bindal xale bi dama ko ne Adamo ça va xaaral ma liir ko comme jigéen pour ngeen dégg ni ma ko dugalee ci xeli xale bi Adamo ça va boobu ba léegi yaa ngi wax rek te tontuwuma la parce que awma jot bi nga am hmm? damay liggéey wër di wax ak wax ci nit ñi vraiment du sama métier deuxième bi bu ma demee bay tontuwante aada wax dëgg yàlla dinaa tontuwanteeg sama nawle aada moom man nawlowuma la lépp loo yor ci man comme preuve génneel gaaw dégg bul ci xaar dara dara nag defal live léegi léegi nii boo waxee ba pare nag nga ñëw ma doublé li ñu la fay pour que nga duul message bi laa leen di liiral ci voix femme bi jay naa am kalaas nag day jëkk la ndax <laughs> non xoola maa ngi leen di nuyuwaat beneen yoon ah. di leen nuyu bu subaa kii si Aïssa Faté la ak Thiam 19h Sénégal lii rek la woon ñëw ma pour yàq moom nii pour yàq carrière am Momo dafa def lu bon def lu ñaaw ma di ko ko wan mbokki Momo yu juum sentiment jàpp leen ñuy lor jigéen ju la defut dara koo xam ne ëmb na seen doom ba am problème ba di ba avorté dañ ko war a jàppale psychologiquement ndey penda mii ting tong ting tong ñu naan bëtóoru waali du bëtóoru waali de doomu bàyyi Momo la mu biiraloon Momo toppatoo doom ji mu naqari jabar ji ñu tuddee doom ji Momo mu koy estati jabar ji ne moom la moom du ñaawal moo tas sëy bi moo dem ci aada moo moo ko yónnee te aada wax na ko ngeen dégg nee na xamul moomoo du déglu moomoo moomoo ñoru ko li ko ñor moom mooy ndey penda njaay kon lu jig njàgga ndey penda njaay la ak aada mi nga xam ne wax na ne moo aay ci yàq der aada mi xam ne wax na ne xamalul xale bu jigéen bi dara aada wax dëgg yàlla su ma jàppoon ne lii victoire la dinaa ko dinaa ko ndamoo mais du victoire parce que dama la ëpp xel ëpp la xam-xam ëpp la xaalis gën laa xam àdduna dunduloo dundul xam loo xamul fekkee loo fekkeewul lii rekk la fekk yaa ngi bëgg ndam ak jàmm dangay génn ci man saa yoo duggee ci man gàcce rek nga ciy jële lii laa amoon lu may ñu ambiance tuuti